umpule woon ne jamono yi dañ fay ñëwoon am loo xam ne moo doon suñu mébét ñu àggale ko ko mu def ci taxawaay bu rafet yónnee ñu ci kii nga xam ne mooy doomam Ousmane Sonko ba ñu demee waxoon nañ ko yéen yëpp ngeen dégg ko nanga xam ne moom lañ ko fekkee woon mayuñu woon sax pour ñu jox ko yóbbante bi walla ñu wax ak moom alhamdulilah rabbi alamina ba nga xam ne ximmiliku na ñu wax ko ne ko ñëw nañ fa man ak ay dëmbooj te ñu ñii waa yeewi askan bi nga xam ne ñoo ñu yónni woon mu rafet lool lool li nga xam ne moom la sëriñ bi def yónnee ci moom kàdduy cant ak kàdduy ngër ngërëm ne nañ ko xamal ne la nga xam ne moom la jàppoon muy xiifal ba dakkal na ko bañ ko waxee sëñ bitim wax dëgg yàlla mbégte mu rëy la am ndaxte ba ñu àggee foofu ca kàddu moom ci boppam moo ne alhamdulilah ndaxte ba mu ñuy yónni yónni ñu woon ci affaire politique diggante jullit ak pëlëw